asalaamaaleykum chers amis internautes tey maa ñëwaat ak yéen fii ci DKR 221 pour beneen numéro revue people tey nag li leen indiloon moo di retouru Kocc ak ki nga xamante ni moo di Collé Trait ak ay jafe-jafe àddunaam ak euh, Viviane ak ki nga xamante ni moo di ex jëkkëram bi di Tafa Dia ñu indi leen ci quelques leeral ñu dem tuuti te ñëwaat. le retour de Kocc. Kocc nag euh, gëjoon nañ ko léegi loolu moom nag bi yoon dafa ñëwaat ak ci yeneen anam ginnaaw bu mu jógee ci ki nga xamante ni moo di Rangou Kocc dafa daal di attaqué benn international euh, footballeur euh, ginnaaw ba mu yore ay vidéo sextape am fi international footballeur boobu di ko bal àq léegi Kocc da ko daal di tegal trois conditions pour mu ko jéggal conditions yi nag moom footballeur boobu. tànn na ci benn mu di maye deret ci la daal di convaincre euh, cinq xaritam pour ñu mu daal di dem centre boobu di transfusion sanguine bi nekk wet hôpital Fann pour ñu dem maye ji fa deret ci la ko coach nag daal di baale footballeur bi kan la war a mun a doon à votre avis may laaj nag coach moom ndax li muy def bi yoon yàq la wala defar ginnaaw nag bu ñu jógee ci poche dañuy daal di jàll ci Coly Texet Coly Texet nag di nit koo xamante ni kenn dootu ko présenté moom mi nga xamante ni yàgg na noo bégal à travers théâtre muy def euh, di ci joué ay rôle ku ak ku xelam neexul ak yooyu moom nag Coly Texet un membre de sa mi ngi xamle ni dafa am feebaru xel moom Coly Texet nag di nit koo xam ne yàgg na noo bégal à travers théâtre moom gone bawol boobu ñii ñi ngi naan dañ koo liggéey ñi ñi ngi naan dafa tombé. en tout cas daal lu ci mënti am moom Coly Traite ñu ngi koy ñaanal mu am wér gu yaram bu baax ñëwaat bégalaat askan wi. ñu jàll ci beneen information bi Viviane Chidid nag di nit koo xam ne kenn dootu ko présenté moom nag euh, ñu indiwaat ci yeneen leeral ginnaaw bu mu divorcé ak kookule di Tafa Dieng ñoom nag euh, jotuñu woon wax li waraloon seen divorce fan yi dañoo for ci weeyu bëy Tapha Dieng mi nga xam ne nii moom Viviane sëyoon nañ sëy bu rafet tey tàqali ko woon nañ tàqali bu rafet tey euh, seen bisub divorce mu ngi coïncider ak jour wu ngénte Bouba sénégalais nag di laajte ndax coïncidence la wala lu Viviane bëggoon la. waaye nag lu ci mënti am euh, Tapha Dieng xamle na ni Viviane bëggoon na ko lool tey it sëyaloon na ko sëy bu rafet ginnaaw sëy dagan na tey it tas dagan na. Viviane Chidid nag moom nanguwul joxe version bañ ko laajee nag dani vie privée la du te du ci wax. moom Viviane Chidid di waaj a génne album nag ci fan yu néew ci biir février bi album bu tudd beneen level ñu ko ci ñaanal succès bu baree bare fait divers yi nag mooy Sénégal at mi tàmbalee xaw na triste ndaxte seetlu nañ ni meurtre yi bëri na lool ba tax na sénégalais ñi ngi laaj ndax jotul ñu appliqué loolu lee di peine maanaam ku ray ñu ray la. lii laa leen indiloon tey nag ci seen revue people fii ci DKR 221 bu leen fàtte nag di abonné teg ci di like xanaa di leen ñaanal bonne fin de semaine gros bisous à vous tous.